أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي ام ميديا جروب نور داريني ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu suñu rëcc rëcc te nungoo ñu suñu jaamu yàlla ñu di leen ziyaar bu baax a baax ci weeru sel wi ñu nekk di ñaan yàlla lépp luñ ci jaamu rek yal na ko yàlla nungul te fulul ñu ko defal ci ay teraanga ak xéwal yi koy suñ njortu àdduna ak alaxira bi jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy ziyaare kilifa gi nag ak di ko ndokkee bu baax a baax muy a cheikh abdul ahad mbàkke ibnu sëñ bay mbàkke jaaxal ñoo ngi koy ziyaar bu baax a baax di ko ndokkeel ci weer wi di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala may ko tawfiixi lim bëgg a liggéeyal islam lépp mu man ko liggéey te nu ànd kook moom di jël seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jël ziyaar boobu ak nuyoo bi rek di ko teg ci loxoom di ko ñaan mu dolli ñu ñaan bu baax te jot li ñu mbokk yi ziyaar boobu ak nuyoo boobu mbokk yi mbokk liggéey bu sell bi yépp ñu leen di ziyaar di leen ndokkeel di jaarale ziyaare boobu ak ndokkeel googu ci loxo yi kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jot li ñu ko ñépp rek ñu bokkal liggéey bu sell bi waaw kon mbokk yi tey ñu ngi ñëwaat ci fatwa bi rek di ci sant yàlla subhanahu wa taala bu baax a baax waaye tamit di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi liggéey bi xel lool saa su ne ñu nekk ci loo xam ne li moo ko jëmale kanam kon tey laaj bi ñu fi jëkk am rek mooy laaj bi jóge ci soxna si soxna Fatma Ndiaye ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel di ko ñaanal yal na ko yàlla doole defal tawfiq soxna si da doon laaj weeru tabaski yi nu nekk yan fan lañu taamu ci ñu di ko ci woor maanaam yoo xam ne daal dañ koo tànn ñu mën koy woor mu doon koor ak naafila waaw xam naa loolu mu laaj lu am solo lool la muy weer yu nu nekk Seydina Muhammad dama cee tànnalam ñaari fan yoo xam ne yii da ko daan woor fonk ko lool waaye itam digal nu maanaam ku ko mën rek nga di ko woor muy ñaari fan la yoo xam ne ñoo tegaloo muy weer yu ñu nekk buñ nee ba ca juróom-ñetti fan ba maanaam juróom-ñetteelu fan ba ak juróom-ñeenteelu fan ba daal sopp nañ ko ko woor lool maanaam mu am solo lool ci képp koo xam ne kii mën nga ko daal weeru tabaski wii nu nekk suñ nee tey ji la juróom-ñetti fan nga woor ko waaye itam boo demee ba àgg ca juróom-ñeenteelu fan ba it nga woor ko kon daal ñaari fan yi mooy yi nga xam ne yii tàmm nañu daal maanaam taamu nañu daal ku ko woor ku ko man koor gu ama am solo la ay xewal yu baree bari la ci yàlla def nañ ko yàlla jàpp ndawal bi jël seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen laaj yi ci toppaatit mu ngi jóge ci suñu rakk ji suñu xarit bi Serigne Moustapha Thiaw suñu rakk la suñu xarit la wax dëgg yàlla ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax waaye tamit di wax amin ci ñaan yi xam nañu yéeneem ak bëgg-bëggam lu baax ndeysaan yàlla na ko yàlla loolu defal tawfiq defal ñu ko ñun ñëpp bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ Moustapha Thiaw dafay laaj maa xukmu al ishtiraaku fi l udxiyati wal ishtiraak li shiraa al udxiyati lil walidayni sëñ Moustapha day laaj lu aju ci wàllu tabaski muy day laaj ndax maanaam am tabaski mënees na ko bokk maanaam cotiser xaalis bi jëndal ko sa ñaari waajur kenn ci sa ñaari waajur wala say ñaari waajur maanaam ay doom yoo xam ne yi xañ na seen waajur wu góor wala wu jigéen bëgg naa tabaski te yor xaalis bu mu jëndem tabaski ñoom doom yi ñu dajale xaalis jëndal ko ko maanaam loolu lay laaj lan mooy àtte ba dañu naan yasixu fil ibili wal baqari duunal xanami waaw maanaam dañ ne dafa jëkk wax ne dañ ne deesut corrigé am tabaski ah kay xeeti jur gi nga xam ne gii moom la ñuy tabaskee am na ci yoo xam ne maanaam charia may nanu maanaam ñu cotiser ko moom na maanaam bu fekkee ne moom danoo doon mbooloo lu mel ni giléem aku nag maanaam suñu bëgg na tabaski nu mat juróom-ñaari nit masalan te kenn ci ñun amul lu mën a jëndem tabaski te bu ñu cotiser mën a am lu mën a am xaalis bu mën a jënd aw nag wala giléem bu boobaa charia dinañu may nu cotiser jënd nag woo wala giléem googu bokk ko ñun tabaskee ko suñ ko rendee séddoo ko waaye nag loolu moom duñ ñu ko may ci maanaam lu doon juróom-benn wala ab lim di cotiser am xar wala aw bëy waaye bu dee nit giléem la daal wala nag may nañ ñu cotiser jënd ko bokk ko waaye dañ ñu koy tere ci bu dee ni aw bëy la wala am xar su boobaa moom buñ ko mëntaam rek maanaam tabaski gi dañuy daal di wàcc lool lool waaye tamit beneen bi mu wax moom bi li muy laaj muy ndax doo ay doom mën nañoo cotiser jëndal seeni waajur am tabaski loolu dañ ne wa itastaraka ixwatun fi shiraai udhiyatin min al ghanam an walidayhim jaaza dhalika ne ne ay nit bu ñu cotiser jëndal seen baay wala seen yaay am tabaski loolu sharia may nañ may na maye na ko sharia maye na ay doom yoo xam ne yi seeni waajur amuñum tabaski ñu boole ku nekk la nga am ba mu matam tabaski ñu jëndal ko seeni waajur jox leen ko ñu tabaskee ko ba tey sëñ Moustapha mi ngi laajaat xukmu sadaqati minal ubuxiyati sëñ Moustapha mi ngi laajaat ne dañ ne am tabaski boo ko reyee danga cee war a saraxe muy laaj nag yow fi nga nekk bu ñépp amee tabaski maanaam ñi am xaalis ak ñi amul xaalis maanaam ñu ñàkk ña ñépp maanaam am nañu tabaski léegi yow ndax sarax boobu danga koy bàyyi wala faaw sarax bi daa war a génn loolu it lañ ko cay tontu mooy dalati nusuusu shariyatu ala wujubi tasadduxi min al uduxiyati maanaam saraxe ci am tabaski maanaam sharia da koo tëral mu nekk loo xam ni maanaam dañ ko war a def maanaam nit ki su rayee am tabaskeem maanaam dafa war a xool ña nga xam ne ñii yelloo nañu sarax mooy ñu ñàkk ña nga xam ne boo amoon ab sarax bul tabaski mi danga leen dem jox leen ko du tere ñoom bu ñu amee tabaski itam sa xar mi boo ko rayee da nga cee génn sarax boobu daal di leen koy jox ndax génn sarax bi maanaam alxuraanul karim da ko wax digle ko ñu war koo def waaye tamit Seydina Muhammad danoo wax ne bu ñu reyee am tabaski nañ ca génne ab sarax kon sarax boobu boo gisee ku ñàkk mu nekk sa côté itam waaye am na tabaski du tere boo génnee sarax boobu da nga leen koy jox maanaam da ngay génne sarax boobu jox leen ko ndax ñoom bu ñu amee tabaski itam maanaam buñ dee ba seen tabaski moom mu jeex seen ñàkk ka day daal di ñëwaat taxaw su ko defee loolu ñu leen di sarax ci ci tabaski yi suñu góorgóorloo ba denc ko ba yàquwut bu seen xaram tabaski moomee jeexee loolee ñu doon sarax kon ñu mën caa continuer di ca dund ba kera yàlla di indiwaat leneen bu ko defee liy tegtale na sarax bi daal dafa war maanaam boo ko boo tabaski yow da nga ko war a def ñetti xaaj la Seydina Muhammad wax maanaam nee na benn bi da nga koy def ñetti xaaj benn bi nga téye ko sa kër di ko jëfandikoo maanaam di ko lekk li ci des nga benn bi nga saraxe ko beneen xaaj bi ci des maanaam nga denc ko ngir yeneen fan yi nga xam ne yii moo cay topp li ñu tegtaloo ci alxuraan ak ci ne sarax bi dafa sa dafa war maanaam saraxa ci tabaski mi dafa war mooy aay bi yàlla dafa wax ne qaala allahu taala fa kulu minha wa at'imu xaania wal mu'tarra yàlla dafay wax ne su ngeen reyee am tabaski na ngeen ca lekk te jox te ña nga xam ne ñi ay woy ñàkk lañu aay bi nag ñaari ñaar ñu ñàkk ñi mu tudd fii mooy alxaani wal moo tar la nañ leen jox sarax boobu alxaani mooy ki nga xam ne kii dafa ñàkk waaye moom ndeysaan du laaj ndax dafa jomb nekk di laaj nit ñi ngir ñu di ko sarax al moo tar nag mooy koo xam ne kii dafa ñàkk waaye moom itam ndeysaan am na kii yëpp maanaam mën a dem di laaj yi nit ña waaye nee nañ ñaar ñooñu ku mu ci doon daal su ngeen reyam tabaski na ngeen dindi sarax boobu jox leen ko ba tey li ñuy tekkalawaat ci xadiis loo xam ne seydina muhammad moo ko wax ngir ne sarax boobu dañ ko war a génne seydina muhammad wa xaala sallallahu alayhi wa sallam fi l adaahi fa kulu waddaxiru wa tasaddaqu maanaam aaya ba yàlla al yàlla waxan rek ci alxuraan ne moom la seydina muhammad gën a dëgërale gën koo tafsir gën koo leeral muy seydina muhammad dane su ngeen tëbaskee na ngeen ca lekk waaye na ngeen ca denc waaye na ngeen ca saraxe kon daal ku amam tabaski boo langeeg ñoo xam ni ñu ñàkk lañu am nañum tabaski du tere yow sarax boobu da nga ko war a génne jox ko ñooy nga xam ni ñoo ko yooyoo ndax aaya bi di alxuraanu karim saxal na ko waaye itam xadiis muy sunna saxal na ko kon wàllu googu daal noonu la fay demee tabaski daal ñetti xaaj lañ koy def benn bi ñu lekk ko ci bés bi li ci des ñu denc ko beneen bi ci des ñu saraxe ko yeneen laaj ji toppaat sëriñ Aliou Ndiaye Oustaz Badara mbal mi moo ko fi yónnee sëñ Badara Ndiaye ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax di ko ndokkeel moom itam dafay laaj mawxiful mu'mini yowma idil adha sëñ Badara day laaj ne ab jullit daal ban taxawaay la war a am ci bésu tabaski ab jullit de moom lépp loo xam ne li ak jaamu yàlla la rek maanaam la ca war di taxaw ci ay guddeem ak i bëccëgam waaye tamit rawatina bis yi nga xam ne yi bési feet la yoo xam ne charia moo nu ko tànnal tegal ñu ko mu dig jaamu yàlla doon feet ci ñun yooyu lañu war a gën a mën a bàyyi xel di ci gën a ëppal di ci yokk sunu jaamu yàlla ci xeetu jaamu yàlla gu mu mën a doon ndax ak jaamu yàlla maanaam jëf dina rëy ngir béréb bañ ko defee waaye jëf itam dina rëy ngir waxtu wañ ko defee waaye jëf itam dina rëy ngir jëmm ji tax ñu def ko kon jamono yi nga xam ni dañ koo tànn muy lu mel ni ay feeti tabaski ay feeti korite yu mel noonu di ci yokk say jaamu yàlla dafa am solo lool lool lool kon jullit bi daal li ko war ci bésub tabaski mooy bokk na ca ihyaa u laylatil iidi mooy jullit bi bëgg nañu buñ ne suba la tabaski maanaam guddi googu mu màggal ko màggal guddi nag mooy nga taxaw ci ay naafila ci man loo mën a julli ci ay rakaa waaye tamit loo mën a jàng ci alxuraanul karim loo mën a def asalaatu ala nabi yi nga baril ko ci guddi googu ñu ne maanaam suba la tabaski bokk na ca la ca jullit war a taxaw itam at takbiiru min laylatil iidi wa duburi salawaatil maktubati ila salaati asri saalisi ayaami tashriq bokk na ci itam jullit bi buñ ne suba la tabaski mu tàmbali di wax allahu akbar di ko wax lu baree bari tàmbalee ci guddik tabaski buñ ne suba la tabaski ak it ñetti fan yi toppaat ci tabaski julli farata goo julli ngay wax ay allahu akbar loo ca man ci ab lim loolu itam bokk na ci li jullit war a bàyyi xel ci jamonoy tabaski gi bokk na ci itam al ixtisaalu li salaatil iidi ba sopp nañu itam jullit bi buñ ne tey jii la tabaski balay dem di jullit yi maanaam mu sangu sangu farata ngir waajale ko jullit feet googu bokk na ci itam lubsu ahsani thiyaab wa tatayubi sopp nañu itam jullit bi buñ ne tey jii la tabaski nga xool say yére yére nga xam ni moo ca gën a rafet moo ca gën a baax nga sol ko waaye tamit nga xeeñ lat ko lañ taamu nañ ko ci bés boobu bokk na ci itam a taajilu bi salaatil iidi bëgg nañu itam julli ko nga xam ne gi moom la ñuy julli bu waxtu naafila jotee rek nga ñu daal di julli julli ko nga xam ne gi moo ànd ak julli feetu tabaski gi bokk na ca itam zabxul udxiyati baada zabxil imaam udxiyatahu bëgg nañu itam nit ki bu amem tabaski fi mu nekk ab imaam am fa maanaam kuy jiite ca jàkka ja wala ca jumaaye ja muy imaam ba maanaam sopp nañu yow bala ngay rendi sa imaam boobu rendi am xaram ba pare ngay doga rendi ndax ne nañu koo xam ne danga jëkk rendi sa imaam da nga koo jëkk rendi sam tabaski ne bu boobaa sa loolu dootu doon am tabaski waaw kon loolu itam ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ku mu doon foo mën a nekk nga jéem a lijjanti leerlu ba bala ngaa rey sam xar sam tabaski masalan nga mu leer la ne sa imaam rey na am tabaskeem ba pare bokk na ci itam loo xam ne li sunna la maanaam Seydina Muhammad da ko doon def muy an yarjia min as-salaat bi tariqatin gayri tariqi allazi jaa bihi sopp nañu itam boo demee ca fa ñuy jullee yoon wi nga amoon bi ngay dem di julli ji soo jullee ba dëpp nga jaaraat ci weneen yoon ndax noonu Seydina Muhammad noonu la ko daan defee bokk na ci itam an yasila ahlahu wa arxamahu wa jiraanahu wa yusaafiya wa yuaafiya man baynahoo wa baynahoo shahna bokk na ci itam sopp nañu yow jullit bi bésu Tabaski nga jokk sa mbokk yépp waaye bokk jokk sa waa kër waaye tamit ñi nga xam ne ñi da nga dëkkan ñoom nga jokk leen maanaam ziyaare leen la bëgg a wax waaye itam képp koo xam ne kii ak noonoo doxoon na seen diggante bëgg nañu bése tabaski boobu maanaam nga dem balu ko àq ngeen jéggalante seen noonoo googu jeex seen diggante waaye bokk na ci itam tëx ni atu lil aqaari bi bëgg nañu itam sa mbokki jege ne jege ñaale yi ku ci nekk nga dem ca moom maanaam ndokkeel ko won ko sa mbégte gi nga xam ne gii moom nga am ci bésu tabaski gi lii daal lenn la ci luñ tënk loo xam ne lii war na ci jullit bi bésu tabaski googu maanaam bëccëg bi yépp maanaam muy dund loolu nga xam ne da koy dund ak doom aadama yi ci bésu tabaski bi waaye tamit bésub tabaski bokk na ca wa yaxzarul muslimu fil iidi at takallufa wal israafa waaye itam am na yoo xam ne dañ koy moytuloo jullit bi ci bésab tabaski gi mooy ak takalluf maanaam di tog sa bopp loo xam ne li àttanoo ko maanaam day métti ci yow ci wàllu fere ya maanaam lu mel ni colgaat ya ñuy xiiwal ak yee yépp daal nee na maanaam bul ci teg sa bopp lenn loo xam ne lii lu diis la loo xam ne lii mënoo ko wal israaf waaye itam dañ la cay tere lépp loo xam ne li ak yàq la maanaam lu ëpp maanaam nga xam ne dangay togg lu bare bare muy des di yàqu wala ngay jënd ay lu ñuy naan wala leneen lu ñuy lekk nga xam ne dañuy dem ba gis muy yàqu duñ ko mën a lekk noonu loolu itam dañ la koy tere waaye tamit ad duxul ala nisaa fil buyuti wa musaafahatuhunna wal julus maahunna waaye itam ne ne dañuy tere jullit bi jullit bi bésab tabaski na ca moytu muy dem di dugg ci jigéen ñi ci biir jigéen ñi maanaam ca jataayab jigéen ña waaye tamit nay moytu di saafaxonte ak jigéen ña waaye tamit nay moytu dem ca biir jigéen ña di bokk ak ñoom ab jataay waaye tamit dañ koy tere ixtilaatul nisaa'i war rijaali fil hadaa'iqil aamati wal mutanazzahaati waaye tamit dañuy tere jullit bi bésub tabaski maanaam muy dem di jaxasoo maanaam jaxasoo góor ñi ak jigéen ñi daal dañu koy tere rawatina bu dee ci jardin public yi maanaam bu fekkee ne fu mel ni ay taax la béréb yooyu nga xam ne dañ fay dajaloo ngir maanaam di feexloo ak di noppul ak di doxantu daal bañ nañu maanaam jigéen ñi ak góor ña dajaloo foofa di jaxasoo ci bésab tabaski gi loolu moom naka jekk moom du benn bés boo xam ne bii maye nañ ko sax nag ñu di ko def waaye tamit iqaamatul xafalaat alxinaiyati dañuy tere jullit bi itam ñu ne tey jii la tabaski gi ñuy def ay feet yoo xam ne dañ koy teg ci ay misik maanaam di tëgg ay misik ngir ne maanaam dañ koy feetoo loolu itam dañ ko koy tere wa shuhudaha waaye itam boo ko organisé wut itam dañuy bañ nga dem di teewi ca ña nga xam ne ñi dañ koo organisé muy wàllu musique yooyu al istixaalu bi laahibil waraq dañu koy tere itam bis boobu lu mel ni carte xeetu carte gu mën a doon su saa su ne loolu moom charia da koy tere waaye rawatina bu dee bésub tabaski la alxaflatu an zikrillahi waaye itam dañuy tere nit ki ci bésub tabaski gi muy sàggan ba maanaam du ca tudd yàlla tudd yàlla yee ñu ko wax nga xam ne la ca gën a am solo la ca gën a fis la ca gën a ràññeeku muy ay ngay wax ay allahu akbar yu baree baree bari ne ne loolu itam dañuy lay tere nga sàggane ko waaye ixraajul banaati mutabarrijaatin waaye tamit li ñu gën a seetlu muy loolu ñu wax naa dañuy ndéwénaan gone yi di ko def rawatina gone yu jigéen yi ak ña ca mat ak ña ca matum ñépp daal gone yu jigéen yooyu daal ne nañu dañuy tere jullit bi su bésu tabaski bi mu bàyyi ay doom yu jigéen ñuy génn di taxawaalu di wër ci mbedd yi naa dañu naan një naa laaj ndewe naan loolu itam bokk na ci li ñu tere jullit bi at taxawunu fi tarki salaatil iidi waaye tamit ne ne nit ki jullit bi dañ koy tere bés bésub tabaski gi julli googu nga xam ne gi moom la ñu war a julli maanaam mu bañ koo julli ba pare te ñàkk a julli googu maanaam oyof ci moom lool maanaam yëgalu ci yaramam dara yëgul ne maanaam lu garaaw a garaaw la def yii itam ay mbir la yoo xam ne yii dañu koy tere jullit bi ci bésub tabaski gi ñu war ko bàyyi xel bu baax a baax li mu wax fi nii booy xool lee mu ne taxawaayam jullit la war a doon ci bésub tabaski gi même yeneen bés yi itam nit ki war na ci mën a góorgóorlu tàmm ko ba di ci mën a taxaw taxawaay boobu nga xam ne bii moom la ci taxaw ci bésu tabaski waaye yii ñu ko tere itam naka jëkk jullit moom loo xam ne li charia bëggu ko rek da koy tere jullit ci feeg mi ngi dund feeg mi ngi nekk ci àdduna kon buñ leen lii la war a moytu ci bésu tabaski gi du tere loolu da nga war a góorgóorlu tàmm ci bàyyi ko parce que jamono yi ci des yépp maanaam nga mën a bàyyi loolu nga xam ni dañ la koy moytuloo kon daal yi ñaari tomb la yu ñu tënk ci julli bi lu mu war a taxawee ci bésub tabaski kon ñu dégge ko noonu rek te jéem ca góorgóorlu suñu këm dalaayu kàttan di ñaan yàlla mu jàpp lañ ca bi jëy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ badara njaay beneen laajam bi day wax masa yafalu man wukkila aw man wakkala xayrahu zafa udhiyatihi ne ne ki nga xam ne kii dafa sàkku ci keneen maanaam mu rendil ko am xaram maanaam ki nga xam ne kii rendilut boppam am xaram waaye dafa wax keneen mu rendil ko ko nan lay def dañu ne man wakkala xayrahu zabha udhiyatihi ajzaahu dalika wa in lam yashhadha maanaam nit ki su sàkkoo ci nit mu rendil ko am xaram nit kooku maanaam mooy taxaw taxawaay ba nga xam ne bii maanaam moom bu ko doon rendil boppam loolu rek la koy tax la lay taxawee maanaam boo na nit ki rendil ma kon maanaam yow jëlul nga fay wax dara da ngay toog rek seet kon seetaan ko noonu mu rendil la ba defee mu waxal la la nga xam ne ni moom nga war a na wax waaye yow daanaka mën nga caa bañ a wax dara bu ko defee bu fekkee ni nag danga wax nit ki mu rendil la maanaam nit ki li ñuy wax ci maanaam kii rendi maanaam li mu war a wax danaan bismillahi wallahu akbar allahumma haza minka wa laka wa haza anni fa taqabbalhu minni kama taqabbaltahu min xalilika ibrahima wa min xabibika muhammad bu fekkee ne yow yooy rendil sa bopp danga naan bismillahi allahu akbar yow yàlla lii may rendi nii maa ngi la koy jaamoo ci yow lu jege woon waaye maa ngi la koy delloowaat waaye it maa ngi koy jote sama bopp kon na nga ko nungu ci man maanaam jaamu yàlla gii may def yàlla na nga ko nungu comme ni nga ko nungo woon ci sa xarit ba muy ibrahim waaye it ak ni nga ko nungo woon ci sa soppe ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ne nag da nga koy rendlu maanaam keneen moo la koy rendil ki lay rendil day wax bismillahi wallahu akbar allahumma haza minka wa laka wa an fulaan lay wax wa an fulaan waaw daane allahumma taqabbal min fulaan wa ali fulaan ila axirihi ne ne nag su fekkee ne yow keneen moo lay rendil bu ñëwee ba ci allahumma haza laka wa minka danaan wa haza an fulani maanaam lii yow yàlla diw daal di wax turu ka nga koy rendil ne diw moo la koy jaamoo di ko jote boppam kon yow yàlla yal na nga ko nungu ci diw moomu daal di wax turu ki la koy rendiloo maanaam allahumma taqabal min fulaan wa ali fulaan yal na nga ko nungu ci diw maanaam bu doon ustaas la ñu ne yal na nga ko nungu ci suñu Aliou Badara Ndiaye mii ak ñoñam bu ko defee kii reyndu kii rendilu noonu lay def maanaam noonu lay def ko koy rendil noonu lay wax beneen laaj bi ci des saat muy laaj Seex Seex Aliou Badara Ndiaye ba tey muy xukmu zabxil marati lil ubaxiyati ndax jigéen mën naa rendi am tabaski waaw foofu yi ne dañ ne zakara adadun min al ulamaai ala sixati tazkiyati al marati boroom xam-xam yu baree baree bari dëppoo nañ ci wax ne maanaam jigéen su mënee ren bi bu rendi la muy rendi dina wér maanaam may nañ ko mu rendi daal wa yaqsuduna bi dalika annahu yajuusu lil marati an tasbaxa maa yuukalu laxmuhu min al xayawaanaat lii mu ne jigéen bu rendee dina wér mooy day dañ ceet dañ ci jublu ne kon jigéen may nañ ko maanaam su mënee rendi mën naa rendi loo xam ni dañoo may jullit bi mu lekk ko ñu ci li ñuy li ñu daganal ci bàyyi may maanaam lépp loo xam ne daal dañ koy rendi dagal na nañ ko ëpp jullit ngir bu ko bëggee lekk rendi ko jigéen su mënee rendi mën naa rendi loola maanaam dina wér mu ñu mën koo lekk mooy mooy in ahsanati zabha moom jigéen gi su mënee rendi kon jigéen may nañ ko mu rendi yal nañ yàlla dooleel defal tawfiq bi jooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin